A guy. The king. The gold. The hall of fame. The man who got keys. Mr. West. Guys, salaam aleykum salaam aleykum. dal jàmm sur ma chaîne YouTube Show TV comme ni nga ko far defee chaque fois. nag comme ni nga ko waxee réer naa si radar ah. lu bëri loo xam ne def un mois. quinze jours je crois que ni def ma vidéo c'est pas la première fois mais des fois nit ki day soxla boppam quoi toog mun a am li nga xam moom moo di observation si li nga xam defoon na ko si deux mille vingt bi yëpp mais surtout ostam si li nga xam ni moom nekk di xew fait maa ngi siy jégalu nag parce que y a de personne yoo xam ni ñu ngi doon xaar les vidéos de Wes Show ñu génn mais moom des fois ngeen xam ni situation oblige côté personnel côté famille côté whatever ko beneen affaire bi mooy Euh, maa leen di souhaiter mes meilleurs vœux maa leen vraiment mes meilleurs vœux quoi bonne année année de santé prospérité réussite surtout si ñi nga xam ne lépp loo xam ne yéen a ngi koy sumb te mu jig leen réussir si mes te mu jig leen euh, succès pour ñi nga xam dañ koy soxla muy rappeurs yi acteurs yi wala ko xam yaa ngi si mondo art bi. Euh, succès aussi tamit continental si wàllum football bi lépp loo xam daal sénégalais yi mu ngi ci changement révolutionnaire si li nga xam ne moom moo di life bu tar bi nga xam ne ñenn ñi si sénégalais ñu ngi koy dundu dund euh, hypocrisie bi bu fee taw euh, développement mental bi développement personnel nit ñi xam nga ñu ñu xool nu ñuy grouper ensemble ñu bàyyi yenn futilités yi en tout cas loolu laay mës a ñaanal Sénégal parce que je sais que ni loolu mooy doxal réew bu loolu weesoo ma ñëw jéggalu ma jéggalu sur certains artistes yoo xam ne l'autre jour sama vidéo précédente bi nga xam ni moom laa mujjee def balaa may def absence bi nii j'ai tenu des propos yoo xam ni irrespectueux je vois même que ni j'ai manqué de respect wala j'ai touché wala staff yi nga xam ne ñoom la ñuy enture et je m'en excuse vraiment parce que képp koo xam ne yàgg nga sur Weshow tu sais bien que ni man objectivité lay demee même si c'est cru mais na loon dëgg Euh, sans pour autant indi li nga xam ni moom moo di émotionnel bi te l'autre fois si fond bi toujours maa ngi approuvé li nga xam ni moom laa wax parce que y avait benn genre sorte de manque de professionnalisme bi nga xam ni amoon na ko mais quand même munu ma koo critiquer ñeneen ñi ba pare man ma ñëw def le pire quoi mooy maanaam si forme bi ma ñëw waxee d'une manière insolente ma ñëw waxee d'une manière boo xam ni c'est pas professionnel kon en tant que grand homme maa ngi jéggalu artistes yooyu nga xam ne wax naa si ñoom quoi muy Dip muy Omzo muy muy Ngaka Blindé muy Akbes maa ngi jéggalu quoi vraiment c'était exagéré te des fois nag nit nag boo demee ba xam ni tooñ nga da ngay jéggalu ko ñu ñëw waxtaan tey si benn projet comme je vous l'avais promis dinaa wax si album yëpp yi nga xam ni jot nañ génn deux mille vingt quatre ak sama temps nag parce que temps yi mooy loolu je suis trop trop trop serré mais def de telle sorte aussi tamit album bu ci nekk ma wax ci. j'ai vu des personnes bi ma defee li nga xam ne moom moo di cover ñu ngi may naan album BMJ l'album de BMJ a été déjà euh, certifié album deux mille vingt trois maintenant je suis en de parler de l'album deux nga wax nañ si ba pare y a beaucoup de personnes chronique nañ si jox nañ ko meilleur à travers Galsen Hip Hop kon ça veut dire que décerné ko si y a beaucoup de personnes qui ont maanaam damay wax si nga xam moom album yi am nañ si décembre bi pour li nga xam moom ñoom laa leen jox li nga xam ni moom moo di encore te di waxuma si biim jee te moo tax gisoo leen aussi tamit ma wax si li nga xam ni moom moo di Rap Royce mais j'ai choisi aujourd'hui de commencer li nga xam ni moom moo di série de euh, euh, euh, chroniques yi nii à tra à travers Omzo Dollar pourquoi j'ai choisi Saay Saay Poésie Saay Saay Poésie non seulement c'est un album complet quand je dis complet parce que des fois Sénégal il faut élargir pour gars yi mën a comprendre quand je dis complet mooy maanaam si côté li nga xam moom moo di euh, promo ak marketing si côté li nga xam ne moom moo di design si côté li nga xam ni moom moo di son si côté li nga xam moom moo di recherche musicale si côté li nga xam ni moom moo di punchline ak culture générale bi nga xam ne am na si album bi si côté aussi tamit personnel bi ak ego tripping bi maanaam l'album est complet quoi c'est l'album le plus complet bi ñu génnee j'ai pas di que ne yeneen album yi neexul bëgguma sax gars yi di ma commencé ak par parlo mais c'est l'album que j'ai vu plus complexe mooy maanaam album bi gën riche aussi tamit en produit quoi de ce fait nag moo tax tey album bii nii dinaa ko def en trois parties je vais essayer de wax li nga xam lépp laa xam si album bi dinaa def en trois parties si li nga xam ni moom mooy saay saay poésie mais bref nañ commencé introduction bi saay saay poésie saay saay poésie titre bi nga xam ni moom la Omzo Dolores qu'est-ce qu'il voulait faire là perception bi nga xam ni man personnellement moom laa am si li nga xam moom moo di album bi ça pas dit que ni Omzo ak staffam loolu lañ bon joxe comme ni ko Malathion di waxee chaque fois œuvre daar œuvre daar la bu ko Picasso defee ki defar bi euh, Van Gogh chaque chacun am na benn genre interprétation bi nga xam ne am na ko bi Mona Lisa ñu bëri am nañ li nga xam ne moom moo di interprétation bi nga xam ne am nañ ko la Joconde wala Joconde bi mu génnee ñu bëri am nañ interprétation boo xam ne gis nañ ko à travers li nga xam ni moom moo di artistes yi moom lañ génnee mais ça pas dire que ne artiste bi exactement loolu la bëgg a génnee quoi te loolu mooy lu rafet li nga xam ne moom la ñuy gis si art kon tey jii ni la seule chose bi nga xam ne moom lañ def mooy magnifier li nga xam ne moom moo di œuvre d'art bi nga xam ni quand je dis œuvre d'art je pèse bien mes mots maanaam de façon hyperbolique œuvre d'art bi nga xam ni Omzo Dollar génnee na ko saay day refléter seulement li nga xam ni moom moo di style bi nga xam ni euh, d'écriture bi nga xam ni Omzo Dollar adopté na ko boppam muy saay-saay poésie maanaam benn genre style d'écriture cru mais aussi tamit controverse parce que y aussi tamit par exemple euh, benn weccoo bu ñëwee wax ñu ne weccoo dëgg lay wax mais seulement que wax bi dafa metti c'est parce que style boobu noonu de de bi nga xam ne weccoo moom la indi mooy cru dëgg de façon controversée li nga xam nit ñi bëgg nañ ko wax mais ragal nañ ko wax peut-être moom o Wes Show ñëw di wax de façon respectueux de façon boo xam dañ koy waddu mais di nga dégg carrément nga xam moom mooy creux bi moom la Omzo Dollar ñëwee boo xoolee sax si premier son bi nga xam ni mu ngi def Omar Pène tu vois le gars ñu jox mu jox ñu benn référence nga xam ni mu ngi tudd Pierre Séguès Pierre Séguès ku ko xamul benn euh, écrivain la auteur aussi tamit la nga xam ni moom moo di euh, France ah jamono yi yàgg ko quoi xam nga. léegi moom bu ñëwee dafa ñëw indi li nga xam ni moom moo di poème d'aujourd'hui quoi mooy maanaam poète d'aujourd'hui lañ leen di wooye mooy poète yi nga xam ne nekk si époque contemporaine dañuy wax li nga xam ne moom mooy li fi nekk scandale yi waree ba ils utilisent yenn mots yoo xam ne c'est scandaleux mais day am sens am na day tenir li nga xam ni moom moo di benn genre sorte de vérité wala benn genre fiction bi nga xam ne ñoom moom la ñu bëgg a joxe ko loolu mooy li nga xam ni moom moo di saay-saay poésie et day reflété wu si ki nga xam ni moom moo di Omzo ak style bi xam ni moom lay bindee ba nga xam ne des fois les gens ne comprennent même pas li nga xam ni loolu lay wax wala peut-être boo amul benn genre culture générale bu extraordinaire tu peux pas écouter trop Omzo Dollar wala tu peux pas comprendre Omzo Dollar parce que écouter Omzo Dollar et comprendre Omzo Dollar ça fait deux quoi beneen part bi nga xam moom laay ñëwee mooy manaam wàllum cover bi on va partir si cover bi nga xam ne mooy maanaam aspect visuel maanaam promotion bi nga xam ne gars yi jox nañu ko si cover bi nag j'ai eu à noter yoo xam ne je toujours sama perception la si nga xam noonu laa njàngatee cover bi à travers son bi boo ko dégloo ak direction artistique bi nga xam ni gars yi jox nañ ñu ko si cover bi tu vois un poète mooy li nga xam ne moom moo gën a basilaire comme ñoom niñ ko expliqué poète boo xam dafa toog entouré de ses plumes et de ses encres pour bind li nga xam ni moom moo di livre pour bind li xam moom moo di poème am pour bindi li nga xam moom moo di musique am pour bind li nga xam ni chronique am lépp loo xam jël na ko rek pour wax li nga xam ni moom moo di doléance am à travers art bi nga xam ni moom lay utiliser tu vois tamit tenue vestimentaire xam nga moyen moyen moyen âge xam ni gars yi moom lañ doon utiliser xam nga ay ñoom Da Vinci ay ñoom xam nga y a beaucoup d'écrivains yoo xam ni ah na nañu mais dafa am benn point boo xam ni aspect boo xam ni foofu laay gën a pointé quoi mooy l' bi nga xam ne dañ jël li nga xam moom moo di kanamu Omzo Dollar ñu effacé li nga xam ne moom moo di xar kanamam bi léegi effacement boobu noonu laa bëggoon bàyyi tuuti benn genre euh, décryptage quoi mooy maanaam tey jii nii quand tu voyais jamono yi rois yi mooy les grands rois yi nga xam ne on va prendre roi viking bi Egbert xam nga wala wala Jules César wala wala les empereurs buñ doon bind si ñoom. dañ doon bind li nga xam ni ñoom ñooy décider lan mooy gulaar biñ si boole yan nit lañ si boole pour gën a yokk li nga xam ni moom moo di seen euh, nuñ koy waxatee sax pour wane li gën a yokk li nga xam moom moo di leur le travail magnifique le travail extraordinaire xam nga seen nguur nuñ ko digé woon waree ba quoi xam nga pour war gën a wane li nga xam moom moo di leur leur leur parti majestueux bi nga xam ni moom la ñuy bëgg a joxe chaque fois de ce fait nag y a toujours des personnes qui s'écrivaient mais malheureusement ces personnes la tu les vois jamais créditées quoi maanaam ñuy wooye ghostwriter ñi nga xam doo leen mës a gis ñu naan diw moo def lii quoi le travail extraordinaire bi nga xam ne moom la politicien yi di utiliser tey jii boo gisee benn politicien bu toog def discours am y a des personnes yoo xam ñoom ñooy bind discours parce que personnes yooyu ñoom ñooy xam population bi nga xam moom la ñuy waxal ñoom ñooy utiliser mots juste yi nga xam ne moom ngay wax pour am impact positif si li nga xam ni moom moo di population bu wala pour des fois wax benn mot bu scandaleux pour ni ñi bàyyi si xel y a des personnes qui léegi boo xoolee discours yooyu noonu automatiquement dañ koy décerner ki nga xam ni moom mooy kii porter la voix xam nga dañ koy décerner ki nga xam ni mooy kii porter la voix peut-être même benn genre I have a dream bu Martin Luther King y a des personnes yoo xam ñoom ñoo ko bindal mais le fait que Martin Luther King wax ko mu nekk benn discours boo xam dafay impactant day tax ñi ñi ni honneur beeg lépp dañ koy jox seulement ki nga xam ni moom moo di Martin Luther King c'est comme ray bi nga xam ni moom la wax ni Jelly Jordan Diala moom moo rey tubaab bi or que xam nga am na yeneen bagage yoo xam ne ñu ngi si suuf un jour on va parler je que Euh, dañuy wax si li nga xam ni moom mooy histoire Sénégal en fait pour tëjal leen ko loolu la quoi ici on a vu benn Omar Marafa boo xam ni moom moo nekk di bind si Omzo Dollar moo tax tu as pas vu pen wala Omzo's pain mais tu as Omar pain mooy maanaam Omar pen Omar bi nga xam ni moom mooy bind quoi Omar mi nga xam moom mooy bind soom après mu transformé nit kooku lu nga moo di Omzo Dollar ak ki nga xam ni moom moo di porte-parole mais les gens connaissent ki nga xam ni moom moo di Dollar mais les gens ne connaissent pas ki nga xam ni moom moo di Omar Marafa bi nga xam ne lépp si moom la jóge quoi moom mooy base bi comprendre nga culture général bi whatever moom la quoi loolu leen mu bëggoon joxe fa moo ci waa ñu effacé li nga xam ne moom moo di bët bi parce que Omar Marafa fii moom mooy représenté l'inconnu ghostwriter bi nga xam ni moom moo defar ki nga xam ni moom moo di Omzo Dollar loolu mooy li nga xam ne moom moo di li nga xam moom laa gis ci cover bi beneen aspect bi nga xam ne moom laa gisi ci bi mooy l'aspect rose bi nga xam ni def nañ ko ci quoi rose parce que ñun gis nañu Omzo Dollar se quelqu'un koo xam ni euh, si som yëpp la majeure partie il nous a parlé seulement il nous a beaucoup plus di nga xam ne moom moo di jigéen ñi en fait mooy maanaam soo mu ne sa jigéen bi xam nga wala sama jabar wala soxna si wala whatever même même l'affection que Omzo Dollar a à travers ki nga xam ni moom moo di Viviane ba nga koy gis si yenn genre sample yi wala nga gis si yenn genre forme de refrain yi nga xam utiliser na ko pour charaat ko tu vois carrément que ni am na benn genre relation ak l'aspect féminine ko moom nga gis tey jii nii bu mu defee li nga xam ni moom moo di soow yërëm bi il a laissé libre ki nga xam ni moom moo di Mia Guissé mu joxe li nga xam ni moom moo di version ça veut dire que ni loolu mooy li nga xam ni moom moo di projet album bi et tu si rose boobu noonu aussi tamit le fait que mu woon la ñaari aspect une fii boo xam ne am na nakaru dundoo bu Mia Guissé l'histoire de Mia Guissé on le sait toujours mais tu vois aussi tamit ki nga xam ni moom moo di Fatima tu vois aussi tamit il a beaucoup évoqué ki nga xam ni moom moo di jabaram te aussi tamit gis nañ ko si li nga xam moom moo di amour bi nga xam ne am na ko à travers la poésie la musique ak li nga xam ni moom moo di l'écriture boo xoolee ñooñu ñëpp maanaam dañu am li nga xam moom moo di ay mots féminins la quoi moo tax ñu jam la li nga xam ni moom moo di rose bi est-ce que mu ngi dóor ok ñu dem si li nga xam ne moom moo di décryptage u son yi quand je ma dugg à fond si bars parce que yooyu dama koy jagleel beneen genre vidéo parce que y a beaucoup de bars yoo xam ne mën nañ ko ci wax ko mais dama koy jagleel si li nga xam ne moom moo di recherche musicale bi nga xam ni staffu Omzo Dollar def na ko surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo ji beatmaker yi parce que attention Omzo nekk na benn artiste boo xam ni ñun ñi jëwee nañ ko ko et loolu moo fa nekk c'est pas ça jëwee ko gars yi wax nañ ko carrément manque de professionnalisme bi nga xam ni amoon na ko ci côté promo amoon na ko ci li nga xam ni moom moo di staff boo xam ni amul benn genre ouverture d'esprit boo xam ne si monde bu ñu nekk monde musical boobu noonu c'est pas am na ñoo xam ne ñu ngi doon yàgg ànd moom mais am na ñoo xam ne dañ ko rejoindre même si musique nekkul li nga xam ni moom moo di le domaine extraordinaire mais am nañ passion bi ba relier ko ak li nga xam ni moom moo di life de sa fait moo tax tey jii ne gis benn grande différence entre li nga xam ni moom moo di bët ak à part problème yi nga xam ne amoon na ko bu mu génnee buzz la Omar était perdu Omzo si Omar est perdu Omzo sera toujours perdu loolu dañ si wax si li nga xam moom moo di deuxième vidéo mi am naa damay relier li nga xam moom moo di album bi at euh, film bi nga xam ne def na court métrage xam ne def na ko fële nga xam ni moom moo di si cinéma pâté mais tey jii nii tu benn genre phénix boo xam dafa judduwaat empoché lépp li nga xam ni moom moo di côté marketing mais surtout aussi tamit lan mooy vraiment définition album quoi et c'est pour cela je vous ai dit que ni Omzo a l'album le plus complet et quoi qu'on puisse dire Omzo nekk na benn artiste boo xam ne artistiquement parlant maanaam si côté visuel il nous a toujours ébloui euh, ni ko sax ébloui si côté li nga xam ne moom moo di clip si côté li nga xam moom moo di design si côté li nga xam moom moo photo yi nga xam ni moom lay def c'est toujours quelque chose d'artistique quoi son seul problème c'était question de staff promo nu muy jaay album parce que il croyait que ni Omzo bu dee rap kese il peut venir faire tout ce qu'il veut gars yi nangul et dafa bëggoon c'est comme si que dafa en ce moment là dem xam nga à travers Majestic Drama à travers euh, Clive on the Beat à travers Tamsir à travers euh, Chair Beats gars yi gis nañ ni carrément ni apporter nañ ko quelque chose de plus dope quoi benn musicalité boo xam ne bokkuloon ak bi nga xam ne moom la ñu xamee woon Omzo de ce fait nag quand tu vois yenn genre de musique yoo xam ne dama koy utiliser comme benn genro exemple ma jox la yenn exemple yi xam ci sens carrément recherche musicale bi nga xam ne am na ci dañuy commencer si li nga xam moom moo di deuxième son moo di bëy bëy déjà il faut savoir qu'il parle de go comme benn genre west show parce que nit ki lépp looy def maanaam si domaine bi nga nekk maanaam nga exceller si nga indi si benn genre changement nga révolutionner affaire boobu noonu ba nit ñi jox la si li nga xam ni moom moo di respect tu n'es rien d'autre qu'un goat mooy maanaam def ni nga xam ni yeneen chroniqueurs yi yëpp par exemple west show yeneen chroniqueurs yi ku si nekk am nga sa for mais maanaam culture général bi nga xam ni dajale naa ko maanaam fort yooyu teg ko day def ba at at côté streaming faj naa la leen si lu bëri day def ba en ce moment Wes Show nekk góor c'est la même chose ak li nga xam ni moom moo di Omzo muy wax ni moom mooy góor il suivait li nga xam ni moom moo di l'aspect Messi mais tey jii nii la gars yi jox li nga xam ni moom moo di Greatest all time Messi parce que il a tout pris Omzo nag en ce moment là il comme ça de ce fait nag si béy bi moo tax mu ni la béy référence a goat xam nga référence à greats of all time parce que boo jëlee goat moom mooy béy si en anglais mais dafa am benn acronyme bi nga xam gars yi dañ ko teg mooy maanaam ndaanaan bi ki gën a nga ki gën a double parce que moom moo nekk au-dessus de legend maanaam pour devenir goat ci dois être quelque chose de légendaire après nga doog yi goat quoi stat la quoi léegi foofu noonu da am benn genre euh, ay huit cent huit yoo xam ni waaw porté quoi porté 808 yi quoi mais genre style yi nga xam ni Ellen xam nga utiliser na ko Da bi gën na ko commercialiser xam nga benn trap la boo xam ne trap 808 euh, porté la quoi noonu la ko gars yi di woowee bon ay beatmaker bu ñu ma mënee gën a définir yeneen tuuti en tout cas man d'après mes recherches gars yi noonu lañ ko tuddee quoi mais tu vois carrément que yenn gars yi indi ne comme si drill bi nga xam ni euh, Pop Smoke yëkkati ko yëkkati na ko fii tu as benn NNN Choppa di nga am benn benn benn benn benn benn benn benn Da Baby ah di nga am benn genre Blueface gars yi bëri utiliser nañu mode boobu noonu. pour mettre ko en avant quoi ça veut dire que ni te en ce moment là si actualité la nekk quoi dafa nekk si hip bi si trap bi bokk si son yi nga xam ne gars yi bëri boo ñëwee Italie fii nii y a les links qui utilisent li nga xam ne moom moo di genre style de musique boobu noonu quoi xam nga et d'autres beaucoup d'artistes xam ne ñu koy utiliser euh, même au Sénégal c'est pas la première fois mais y a beaucoup d'artistes xam ne utiliser dañ ko nga ñëw si beneen son bi nga xam ni ñu ngi koy tuddee guddi guddi nag dafa nekk benn affaire boo xam ni eh, c'est extraordinaire quoi guddi c'est extraordinaire parce que tey jii nii dafa am benn genre style de euh, boo xam ni am nañu bëri ñoo xam ne xam nañ ko mais y a des personnes yoo xam li nga xam ni moom moo di terminaison bi ni mooy maanaam rap psychédélique rap psyché trap psychédélique trap psychédélique psychédélique trap psychédélique dafa nekk benn genre mood boo xam ne quand tu entends psychédélique mooy benn moment la boo xam ne xam nga da nga utiliser li nga xam ne moom moo di sinébar yaa ngi volé yaa ngi xam nga après moment boobu nga xam ne da am ay genre trip mental moment bi nga xam ne da ngay am ay genre hallucination moment boobu noonu la ñuy wooyee quelque chose de psychédélique comprendre moment boobu noonu da lay yóbbu que ça soit psychologiquement parlant que ça soit sensoriel da ngay am li nga xam moom moo di benn moment boo xam da am ay hallucination loolu mooy li am moom moo di psychédélique léegi dafa am benn artiste boo xam ni moom moo gën a promouvoir genre musique boobu mu ñu koy woowee Travis Scott et c' était pas le seul boo xam da koy def y' a aussi tamit Post Malone boo xam da koy def y' avait XXXTentacion y' avait Juice WRLD yi nga xam dañ koy def maanaam c' est plus genre mélancolique quoi tey jii nii rap psychédélique boobu noonu rap psychédélique boobu noonu moom la ñu Omzo jox at guddi muy am rapport at guddi parce que la majeure partie yenn bagage yi tu le fais carrément guddi soit yaa ngi discothèque yaa ngi sa gàlle yaa ngi bëgg a xaaj yaa ngi def waree nga def ko moment boobu noonu te lay jox yenn moment yoo xam ne soit c'est réflexif wala mu jox la yenn moment yoo xam ne ay délire ngay indi wala ay xam nga hallucination ko loolu mooy nga xam moom moo di musique boobu nag c'est à travers genre musique boobu noonu si la ki nga xam moom moo di Travis Scott basé pour def li nga xam ni moom moo di ay ay ay bitam wala ay bagage am et aussi tamit Post Malone XXXTentacion moment yi nga xam ni yu bëri suicidaire gars yi bëri dañ koy def xam nga nga utiliser ko loolu mooy li nga xam ni moom moo di euh, trap ñu demaat si beneen son boo xam ni moo di Sago Sago bi nga xam ni def na featuring ak ak As The Best Sago tu as déjà benn sample boo xam ni sample Ariana Grande la sample Ariana Grande la boo xam ni son bi mu ngi tuddoon thank you next ça veut dire que y a des xam ñu ngi ñu ngi déglu maanaam sa hors hip hop quoi on parle de pop mi nga xam ne gars yi moom lañ ko jël sample te ñun ñu xam nañ lan mooy histoire sample ban effet ay am si li nga xam ne ba moo di son at ban originalité nga si yokk quoi boo ko sample at li xam ne moo moo di hip hop Grande la son baa ngi tudd thank you next mais dafa am benn genre style musical boo xam ne dañ ko si ajouté mooy lan muy maanaam jersey drill jersey drill aussi tamit nekk na benn style de drill boo xam ni yàgg na quoi maanaam côté jersey bi nii la nekkoon jersey drill bi boo xam ne en ce moment on benn artiste boo xam ni gën na ko may doole quoi euh, artiste new ji bi muy tudd Ice Spice moom boo xoolee son bi yëpp maanaam jersey drill même featuring yi nga xam ne def na ko sax ah da ngay sentir carrément li nga xam moom moo di jersey drill bu ñëwee di tu as autre beneen nit boo xam ne aussi tamit yëkkati li nga xam moom niveau jésus yu ba nga xam ne gars yi gën nañ des pas de danse whatever muy kan muy Lil Uzi mu defee li nga xam moom moo di la y beaucoup d'autres artistes yoo xam ne ñu ngi si jésus dil bi et c'est quelque chose boo xam ne euh, beaucoup de Sénégalais xamuñu ko quoi beaucoup artistes proposé wuñu ko nit ci quoi bi que nous sommes dans un moment boo xam ne gars yi rap mbalax lañ doon def wala ay taay bit whatever ces gens là dañu bëgg a indi li nga xam ne moom moo di real rap bi quoi maanaam rap bu rap bu bi nga xam ne américain yi moom lañu moom ñoom ñoo ko moom on peut créer loo xam ne moom ñu ko quoi maanaam mën nañ si ajouter mais mun ñu ko moom on est d'accord que ni gars yi créativité mais am na une musique yoo xam ne on voit que avance c'est plus tôt gars ko accompagner bu ma kenn traité de complexe mais hip hop moom mel de ce fait foofu da am li moom moo di Jay-Z am aussi tamit benn sample bi xam def na ko Ariana Grande et ça benn genre recherche musicale moo la koy jox quoi. beneen son bi nga xam ni moom laa bëggoon partage ak yéen mooy son bi xam ni def na ko at euh, at euh, comment il s'appelle ça euh, comment elle s'appelle bi nga xam def na ko lëndëm sànq maa koy évoqué lëndëm en fait tu am tam beneen sample quoi dangay am beneen sample boo xam ni da nga koy gis si mooy sample bi nga xam ni def na ko ci Mirror. ko xamul Mirror benn son la boo xam ni Lil Wayne mooy maanaam Weezy def na ko ak ki nga xam ne moom mu de Bruno Mars sample boobu noonu mooy départ bi quoi départ Mirror bi ci sans carrément que ni lii son Mirror bi la gars yi jël sample ko mais surtout ce qui m'a beaucoup plu que ça soit si nga xam moom moo di son bi di lëndëm mais aussi tamit si nga xam moom moo di Baye mooy reconnaissance bi nga xam ne kii di Omzo Dollar am na ko à travers ñi moo di yenn artistes sénégalais déjà Omar Payne Omar Pène xam nga Omar Pène boobu noonu j'ai même oublié de dire écriture boobu noonu mais bon gars yi je crois que ni comprendre nañ ko mais non xaaral sax ma tëjee ko mais di nga gis ni carrément ni il aime beaucoup Viviane quoi entre parenthèses Viviane Ndour non Viviane Chidid excuse-moi Viviane Ndour Baye booy bi dafa am crush yow ça beaucoup de temps waa ji bëgg am li nga xam ni moom moo di featuring ak yow maanaam doxaane na la nu nekk de façon musicale mais Viviane joxal waa ji featuring am joxal waa ji featuring am parce que quand tu vois Omzo Dollar tu sens carrément que ni le gars dafa am ngandi crush si ki nga xam ni moom moo di Viviane soo dégloo li nga xam ni moom moo di partie bi nga xam ni Mia Guissé moom la ñu def tu te rappelles carrément aéro fi ma toll bu Viviane en fait tu sens carrément que ni inspiration bi moom foofu la jugee quoi non seulement c'est reconnaissant non seulement c'est magnifique li nga xam moom moo di artiste yoo xam ni quoi qu'on puisse bi nga xam moom moo di biir Sénégal mais aussi tamit tu sens carrément creuse bi nga xam ni Omzo am na ko si tu retournes aussi tamit si nga xam moom moo li bàyyee am na benn moment boo xam ni tu sens carrément que mu ngi fa et c'est pas la première fois on le sent sur tous les albums de Omzo tous les albums de Omzo Omzo may nañu ki nga xam ni moom moo li Viviane ça veut ni am na benn genre amour bi nga xam ni am na ko si côté Viviane beneen son classique à travers li nga xam moom moo di piano xam nga j'ai vu que ne Sénégalais yi temps yi jël nañ ko bëri à travers Ousmane Wiss Issa 14 bit j'ai vu que ne il a beaucoup travaillé si genre son yi nga xam ne moom moo di son amour yi son balade yi nga xam ne moom ngay gis wala wóoree ba mais Fatima aussi mu nekk na benn genre recherche musicale bu extraordinaire quoi non seulement Fatima dafa am cohérence si li nga xam ni moom moo di album bi lu tax ma bëggoon si wax parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui se demandaient lan la Fatima di ut si li nga xam ni moom moo di album bi quoi maanaam mënoon na ñàkk quoi mais or que Fatima bii nii baram day dëggal li nga xam ni moom la Omzo dugal si li nga xam ni moom moo di cinéma bi c'est que foofu noonu pour ngeen mën ko comprendre il faut ma ñëw tegal leen li nga xam ni moom moo di chronologie bi ak perception bi nga xam ni moom laa am si rapport entre li nga xam ni moom moo di son ak cinéma bi parce que gars yi quoi qu'on puisse dire foofu noonu am na benn erreur bu colossal boo xam ni si wàllum promotion maanaam mën nañu ne lépp lépp mënul parfait am na benn genre erreur bu colossal boo xam ni staffu Omzo ak Omzo def nañ ko quoi wax dëgg fa yàlla déjà Omzo am nga site je crois bien am nga site maanaam information bi di y aura des personnes qui vont mën a confirmer am nga site je crois que la meilleure solution mooy album bi muy dugg tak après trois jours ni ñuy déglu ni nga xam moom mooy album bi ñu gis ni carrément album mu ngi streamé xam nga nga jël li nga xam ni moom moo di vidéo bi nga xam ni moom moo di sa film maanaam bi nga xam ni def nga ko court métrage bi nga dugal ko si site même si c'est payant quoi parce que tey jii la majeure partie de tes fans nekkuñu biir Sénégal quoi ils n'ont pas l'opportunité dem fi nga xam ni moom moo di cinéma paate amuñu beneen méthode boo xam ni mën nañ ko jënd quoi on a entendu parler de Wido mais je crois que ne balaa moo waroon dem Wido dafa waroon dugg si li nga moom moo di sa site officiel tey jii benn web show tey jii benn kenn ko xam muy kaaw whatever mu bëggee seetaan li nga xam ne moom moo di suite logique wu li nga moom moo di projet bi parce que dafa am benn genre manquement boo seetaanul li nga xam ne moom moo di bi tu vois pas comprendre li nga xam moo di album bi à cent pour cent parce que yenn affaire yi da ay détails yoo xam ni da ko si yokk noonu or que dafa am sens kon tey jii nii la meilleure solution c'était de le mettre si li nga xam ni moom moo di euh, Euh, si site bi nit ñi mën a seetaan comprendre li nga xam ne moom mooy affaire bi même bu fekkee si dañ koy jënd quoi wala pay-per-view whatever après nga jël ko jox ko fi nga xam moom moo di vidéo pour les abonnés de vidéo ñi xam ne am nañ vidéo déjà te bëgguñu ko jënd fële wala demuñu cinéma bi en fait foofu noonu vraiment je crois que ni mënoon na gën a dow beneen affaire bi mooy aussi tamit ñun gis nañu carrément mbay xam nga mbay mu ngi defar li nga xam ne moom moo di sa documentaire bi nga xam ne def nga ko si li nga xam ni moom moo di euh, projet bi et la l'attend avec impatience loolu tam bëgg nañ gis loolu noonu pour xam un peu idée wu Omzo Inanfio mais déjà boo amee li nga xam ni moom moo di album bi am déjà li nga xam moom moo di partie pour métra bi déjà tu vas comprendre complètement lan la projet bi duggoon nag malheureusement y a beaucoup de personnes yoo xam ne seetaan ñu ko moo tax tey ñu toog naan Omzo deful li nga xam moom moo di album bu dóob et c'est une grande erreur album moo gën a dóob album yi fi génn yëpp pour muy gën a clair beneen parti bi mooy euh, quand Omzo parlait de Gengis Khan Gengis Khan bi nag moom personnellement damay jël li nga xam moom moo di vidéo complet mooy troisième vidéo bi nga moom laa lay wax pour décortiquer leen Gengis Khan référence yi base par base baar yi nga xam ne ñoo gën a overdose ma tegal leen ko vu que ni déjà benn challenge boo xam ne gars yi bëri nee nañu show munul def li nga xam ne moo di eh, toj baar dinaa leen ko indi Gengis bi Omar bi ak xam nga yenn baar yi nga xam ne def na ko en général si son bu si nekk quoi en tout cas mais fi may gën a focaliser wu mooy Gengis Khan parce que Gengis Khan man personnellement am na benn genre ouverture d'esprit am na benn genre mindset boo xam ne teg na ko sama bopp am na benn genre aussi tamit connaissance bu bëri boo xam ni Omzo jox na ma ko moo tax ñu képp koo xam ni dégluwoo Omzo ça veut dire que ne sa culture générale dafa des wala maanaam da nga tayala wuti culture général quoi en tout cas gars yi lii moo nekkoon li nga xam ni moom moo di vidéo bi Omar Pène bi nag moom li nga xam moom moo di Omar ñoom ñaar déjà ay homonyme la ñu et les gens comme ni nga waxee tey jii nii boo mënul déglu Omzo ça veut dire que culture générale boo dégloo li nga xam moom moo di son Omar Pène benn son mënoo parkeriser Omar Pène parce que les gens disent Omar Pène moom des man kenn xam li muy wax si yenn son mi ça veut dire que loolu mooy li nga xam ni moom moo di cohésion bi nga xam ni am nañ ko ñoom ñaar mais aussi tamit il faut savoir longévité bi ak légenderie bi nga xam ni ah, ñoom ñaar nekk nañ ko quoi en tout cas lii moo nekk premier épisode chronique bi j'espère que ni apprécié ngeen ko ñu xaar beneen chronique bi nga xam maa ngi koy def bu may wax si li moom moo di direction maanaam suite logique u son yi nga xam moom la choisir ak bu si nekk la moo tax mu choisir titre yi boole ak li nga xam ni moom moo di film bi troisième bi ñu ñëw def li nga xam moom moo di décortication yi indi li moom moo di Gengis Khan wëree ba quoi